salaamaaleykum wa rahmatullah ak seen rubrique bii di xepp xepp bi euh, damay waxtaan ak nguuru Sénégal rawatina justice u Sénégal li ma bëgg mooy li ngeen jàng ci droit ngeen appliqué ko amul doomu buur amul doomu baadoo la yéen wax ne tous les citoyens sont égaux devant la loi Moustapha Cissé fi lay saaga ndey kenn du ko jëli Cissé Lo laa wax fi lay toog di daggal ay saaga yoo xam ne kenn sañu ko répété fii lañ ñëw traité ay doomu sëriñ nom d'oiseau bu nekk Cissé Lo yàq na ko ci njabootu Sëriñ Touba fii ci Sénégal nan leen ku fi ñëwati di ngénte wala ngay takk ñëw di ma ñaan rek dinaa def noonu mais lu tax woowu leen ko mais woo leen ko bu fekkee ne Sénégal indépendance cinquante neuf jusqu'à nos jours amuñu hôpital boo xam ne di de ce ba kilifa bu feebar dem fa faju ngeen ne kenn du wax loolu pourquoi duñ ko wax lu tax duñ ko wax édifice yi fi gën a rëy tubaab bi ñoo ko fi defaroon Dantec tubaab yee ko fi defaroon principal tubaab yee ko fi defaroon Abbas ndaw gii tubaab yi ñoo ko fi defaroon recommandé la tuddoon polyclinique tubaab yi ñoo ko fi def building bi ngeen doon réfectionné tubaab yi la palais bi tubaab yi ñoo ko fi def lan ngeen fi def yépp depuis l'indépendance ba léegi ngeen ne duñ ko wax dañ koy wax. su ngeen jëlee benn poste de santé def ci cinq millions publicité ko ba ñu yaakaar ne cinq milliards ngeen ci def d'accord du ñu xeeb poste de santé mais on attendait mieux qu'une poste de santé dafa ruslu Marocain bu bëgg a jàng xam-xamu médecine ñëw fii ci université dugg ci suñu hôpital yi di exercer waaye bës bu paree du fi toog dafay dellu Maroc ndax xam ne ne amul ay outils amul ay infrastructure amul politique de santé boo xam ne xalaat na ne bu fi toogee dina mën a exercer liggéeyam te di ñu tirer ay profit ngeen ne wax loolu la ngeen bëgg ñu ne leen yéen a baax yéen a jub yéen a tabe yéen aras ngeen di fanaan yi non non mooy ne dafa ruslu dafa ruslu député bu woyam dañ sax mu dem Maroc su mu ta dem Maroc dem France bu mu ta dem France dem Angleterre wala États-Unis ngir lan woyam moo dañ lépp ngeen teg ko ci doowu état ngeen teg ko ci couverture social boo xam ne am ngeen ko ci institution yi ngeen nekk te hôpitaux yi fii ñi ngi dee mool dañ la koy jaay amul lenn lenn lenn looy jënd même seringue bi nga xam ne moom ngay mu moom la ñuy defaree injection soo demee ci hôpital dañ la koy jëndaloo coton dañ la koy jëndaloo sparadrap dañ koy jëndaloo gant bi infirmière bi wala sage femme bi wala ku mu mën a doon dañ lay jëndaloo sax gant bi nga xam ne moom na la war a fajee man sama doom feebar dañu koy opéré femme bi koy defal pansement ay loxo neen lay ñëw ma ne ko boo sama doom rek ma waay yow xanaa da nga dof yow xanaa da nga dof demal ci hôpital yi daan tegal fépp ci yem wallahi asim nga dem ci pharmacie bi nekk foofu lan ngay gis ku ñëw indi téeméer jaay ma sayangal indi téeméer jaay ma gant indi téeméer jaay ma coton outil yi nga xam ne hôpital bi moom la war a jënd di ko jox ses employés ñoon ñu mun a exercer seen liggéey bu dee ordonnance ñu génn dégg ko ci pharmacie yi waaye ñun ñoo leen jën seen outil de travail bu ñu waxee ngeen ne milliards yi nga xam ne moom nga di dépenser dañ koy def ci ay lal def ko ci ay ay ay ay ay ay ay ay produits de première nécessité te doomu aadama yi mooy jënd gaawu cent franc dinañ ko wax ah dinañ ko wax ñun fenn li ñu wax moo fi nekk ñëpp xam nañ ko ñu ñëpp xam nañ ko. bàyyi leen doomu jàmbur yi ngeen jàppee ay buubu golo jàppee seen bopp ay nit da ngeen juddu tëdd comme ñëpp amul yéen ñëpp ku ci juddu da tëdd amul kenn ku ci juddu dox comme mbaam wala fas wala béy da ngeen tëdd comme ñun ñu sàng leen muur ñu di ñu nampal ba ñu màgg pourquoi ngeen yaakaar ne yéen ñu gën ragal leen yàlla waaye citoyen yëpp ñoo yem devant la loi kon nañu appliquer loi bi si képp ku tooñ. muy ministre muy député muy jaaykatu jën ñëpp a yem la loi et la loi salaamaaleykum wa rahmatulah